di leen ndokkeel ci bis bi di ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa taala mu nangul ñu booleem jaamu yi ñu def ñoo ngi ak di ziare sëriñ bi di ñaan yàlla sunu borom yàggal ko fi te may ko wér gi yaram ba mu àggale mboolem naaram yi te ñu ànd koog moom. mbokk julli yi tey dañoo dellusiwaat tam ngir fàttali sunu bopp di fàttali leen te itam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ne képp kuy doomu aadama. léegi léeg sunu borom nattoo la ngay juum di def bàkkaar waaye nee na ñu gën ci juumkat yooyu ci biir doomu aadama yi mooy ña nga xamante ni buñ juumee delluwaat ci borom bi tabaraka wa taala nangoo tuub loolu la wax ne kullu bnu aadama xayrul wa yi xataa'iina tawaabuun te njuumtu lu nga xam ne nag léegi léeg ñu séntu ko ci doomu aadama benn muy njuumte ci gàttañ lu ci lu waroon a def lu mel ni luñ ko digaloon mu gàttañ lu ca bañ koo def walla mu juum def lu ñu araamal ñaar yooyu yëpp nag lu ci man di doon mën naa nekk bàkkaar boo xamante ni da caa war a tuub bu tuubee rek ci la ko borom bi di boole ci ñi nga xamante ni nag ñoo gën ci doomu aadama yi ginnaaw juum mun te ñàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne léeg-léeg ma yëg njàqare ci sama xol ngir ragal mbugalam yàlla tabaraka wa taala ba tax na danaa jéggu jéggulu borom bi tabaraka wa taala ci benn bis bi lu tolloog téeméer yoon innahu la yugaanu ala qalbi wa inni la astaghfirullaha fi yowmi miata kon nag ginnaaw moom moom nga xamante ni borom bi jéggaloon na ko bàkkaaram yi jiitu woon ak ya mujj mooy farloo noonu ci tuub ba di ko def lu mat téeméeri yoon ci benn bis kon nag ñi topp ci moom nga xamante ni gaarante boobu amuñ koon te seen xol am ci ñoo xam ne seen xol dafa wow wala sax mu yegg ci dee ñu ki nga xamante ni léeg-léeg mën nañuy def ay bàkkaar sax te duñ ko faale wala duñ ko yittewoo ba noppi lañuy ñuy jéggalu borom bi néew ñooñu war nañoo roy ci yonente boobu alayhi salaatu wasalaam di bari lu ñuy tuub ngir yàlla mën leen a jéggal yonente bi alayhi salaatu wasalaam itam waxoon ne bokk na ci xéwal yi yàlla baaxe jaam yi mooy su leen nattoo bañ def bàkkaar mu xiirtal leen ci ñu tuub ngir mu jéggal leen yegg na ci ba wax moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam it sax ne borom bi day dana wax ne law lam tudnibu la dahaba allahu ta bikum summa jaa bi qawmin yudnibuuna fa yastaxfiruuna allaha taala fa yaxfiru lahum nee na yéen sama xeet bi day bu leen bu ngeen yëg bu ngeen duntoon def ay bàkkaar nga xamante ni du ngeen def benn bàkkaar yàlla dana leen fi jëlee wuutal fi nit ñoo xamante ni dañuy def bàkkaar di jéggul borom bi sunu borom di leen jéggal kon ñu xam ne borom bi bëgg na lool ku koy jéggulu donte ne bëggut kuy def ay bàkkaar waaye itam ku def bàkkaar ba jéggulu ko itam loolu dana ko bëgg lool te dana ko jéggal loolu nag ak ak soññee la ci ne doomu aadama waxtu nekk war nay jéggulu borom bi tabaraka wa taala <coughs> moo tax euh, sayidna abdullah ibnu omar radiallahu anhuma wax na ñun buñ masaa toog ak yonent bi alei salaatu wasalaam ci jataay sax léeg-léeg ñuy wàññi ci benn jataay yonent bi di fa jéggalu borom bi lu ëpp téeméer yoon téeméer yoon wala lu ko ëpp nee na sax daanañ dégg muy faral di wax lool naan yow borom bi yàlla na nga ma jéggal ndax yoway tuubaakon ba yoway borom yërmande ja rabbi xfir lii wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim kon nag toll ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam su fekkee léeg-léeg ñu wàññal ko ci benn ab jataay muy jéggulu borom bi lu ëpp téeméer yoon loolu tam ku dul yonent bi nag war ngaa xam ne am njàngale la mu wér moo xam ne war nga cay roy di faral di jéggulu borom bi tabaraka wa taala ndax ku taqoo di jéggulu borom bi yàlla dana la defal xat-xat boo dugg mu génne la ca njàqare loo dugg itam mu ubbil la ca bunt boo xamante ni danga mën a génn ci njàqare loole te itam dana la wërsëgale foo xam ne foogoo ko woon loolu la wax ne anna man lazima al istigfaara jaala allahu lahu min kulli diqin maxraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min xaysu laa yaxtasib kon ñoo xam ne taqoog di jégglu borom bi tabaraka wa taala bari nay njariñ yooyu lool waaye loolu ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam tudd doy na njariñ ñu jëlewaat ci itam saddaad ibn aws radiallahu anhu mu wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na jégguli yépp a baax waaye am na boo xamante ni nag waxiin wa ak tëggin wa mooy sang ak jégguli ñu koy tudde sayidul istixfaar ñu mel ne dañ koo laaj ne ko sayidul istixfaar mooy sangu jéggulu yi mooy ban mu ne bu jaam bi waxee ne allahuma anta rabbi laa ilaha illa ant xalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa waadik mastatatu auzu bika min sharri ma sanatu abuu laka bi nicmatika alaya wa abuu bi dambi faxfir li fa innahu laa yaxfiru dunuba illa ant mu ne jéglu gi ak ñaan gi rëy na rëy goo xamante ni yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo ca moo ca teg ne ku wax façon jéggilun bii jégguloo ko boromam te gëm ko bu ko waxee ci bëccëg su faatoo ca bëccëg boobee eh, sunu borom da koy boole ci waa aljanna su ko waxee ci guddi itam te gëm ko nee na su faatoo ca guddi googee itam sunu borom daf koy tàbbal aljanna kon ñu xam ne jéggulu borom bi am na solo lool tabaaraka wa taala rawatina ci bis yu mel ni bii ñu toll muy bisab ajjuma nga xam ne wax ne am na waxtu woo xamante ni ku ci tàllal loxoom yàlla te sellal sunu borom du delloo ñaan googee daf koy nangu kon ñu bàyyi ñu bàyyi jëlewaat ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne su yonent bi bariwaana saa su sëlmalee jéggul yàlla ñetti yoon daa wax naan allahuma anta salaamu wa minka salaamu tabaarakta yaa dal wal ikraam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 أن محمد رسول الله ko waxee woon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam saa su ma saa sëlmal dana jéggul borom bi ñetti yoon wax astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah teg ci allahuma anta salaamu wa minka salaamu tabaarakta yaa dal jalaali bu amee ku laaj nag ne nan lay jégguloo yàlla ginnaaw bam mu jullee ba noppi def ak topp yàlla tam ñoom yaakaar ne boo jégglu la ko jiitu bàkkaar ak wala jiitu te yow da ngaa julli ba nopp loola tontu la mooy mooy sa topp googu nga doon topp yàlla muy lu mel ne julli gi mën naa am mu am njuumte lu ca amoon walla lu ca wàññeeku loola nag la koy defaraat bokk na ci nga tuub dellu ci borom bi tabaaraka wa taala ngir bu la jéggalee njuumte amoon ca julli ga julli ga daal di mat kon jéggalu googu ñu def ginnaaw julli loolooy njariñ bi xanaa gisu itam la borom bi wax tabaraka wa taala ca suratu ali imran laaye fukk ak juróom-ñaar fa muy waxee na wal mustaghfirina bil asxaar ndax booba ñi nga xamante ni dañoo baaxoo di naafila guddi di topp borom bi tabaraka wa taala suñ naafila ba sonn ba sëlmal ci seeni naafila ca lañuy ñuy jéggulu borom bi ba borom bi tagg leen ci ne wal mustaghfirina bil asxaar ak ñay jéggulu ca waxtu njël ak wabil asxaari hum yastaghfiruun ñu xam ne kon def ak jaamu yàlla ba noppi nag di tuub di jégglu la muy jariñ mooy la manqué woon ca jaamu yàlla ga ci ak njuumte ya ci amoon sunu borom mën la koo jéggal jégglu borom bi nag am solo am solo goo xamante ni yonent bi nee na borom bi tabaaraka wa taala nee na yow doomu aadama yaa ngi nii soo ma tàllalee sa loxo di ma ñaan yaakaar ma jéggal la danaa la jéggal te amul lenn lu ma cay faale xanaa xamoo ne yow ne doomu aadama su fekkonte ne sa bàkkaar yi nga def rëy na fi yow ba yegg ci njob baxtalu asamaan nga wëlbatiku tàllal ma sama loxo sa loxo ñaan ma jéggal la tam dëggu ci yow danaa la jéggal te dootuma ca faaleeti dara mu teg ci ne yow doomu aadama xanaa xamoo ne su fekkonte ni def nga ci ay njuumte lu tollook lu fi fees suuf sépp nga def ko ay bàkkaar ba mu fees ba yaakaar ne duma la jéggal waaye nga wëlbatiku nangu ne maa yàlla nga wéetal te doo bokkaale ci man dara jégglu ma dana la indil ci njéggal lu toll ne lu fees suuf ci ak njéggal ko kon bëgg na képp koo xamante ni def nga ay bàkkaar wala ay njuumte nga di ko jégglu njégglu nag nekk loo xam ne am na solo lool ndax cee sóoratu nisa laay téeméer ak fukk borom ba nga naan wa man yaamal suu'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima ku def ay ñaawteef wala nga tooñ sa bopp wëlbati xam ne borom bee borom bi xam ne doomu aadama nga dangay ngay nga jégglu ko da nga fa fekk borom boo xamante ni ab jéggalaa kon la ku bari yërmaande la juróom benn yaa ngi nii nag yoo xam ne bu ci nekk dafay soññee ci alxuraan dafay soññee ci jégglu bokk na ca wastaghfir li dambika walil muminina wal muminaat borom bi dafa digal yonent bi ne ko na jéggulu say bakkaar waaye na ngay jéggulul jullit yu góor yi ak yu jigéen yi ca suratu muhammad laaye fukk ak juróom-ñeent mu waxaat tam ne wastaghfirillaha inna allaha kaana ghafuran rahima na ngay jéggulul yàlla jéggulu sa borom ndaxte mooy jéggalaa kon ba ca suratu nisa laaye téeméer ak juróom-benn mu waxaat tam sa suratu nasr laaye ñetteel ba fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba na ngay sàbbaal sa borom te di ko jégglu ndax mooy jéggalaa kon ba mu waxaat tam ci laaye fukk ak juróom jàpp fukk ak juróom ñaar ci ali imran lilladina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min taxtiha al anhar xaalidina fiha ba fa muy waxe ne wal mustaghfirina bil ashaar loolu lépp di soññee ci ak jégglu ak aaya jooju ñu njëkkoon tudd muy wama yamal suu an aw yazlim nafsahu ak lam wax ne wama kaana allahu li yuadibahum wa anta fihim wama kaana allahu muadibahum wa hum yàlla mu wax ne yéefar yi la ñuy nekk ay yéefar yéefar dëgg ak luñ fa man di yegg seen kéefar sunu borom ngir nekk gi nga nekk ci seen biir yow yonent yàlla muhammad dana tax duma leen mbugal waaye itam julli yi itam duma wàcc ci ñoom mbugal mukk li feek ñi ngi jéggul borom bi tabaraka wa kon nekk gi fi yonent bi aleyhi saatu wasalaam nekkoon daana tax mbugal sax du wàcc ngir borom bi sedd na ko cër waaye nag bu fi jógee itam nag li mu fi bàyyi muy garantie boo xam ne dana tax du wàcce aw mbugal mooy ñuy sax ci jéggul yàlla wa ma kaana allahu muaddibahum wa hum yastaghfiruun ca suuratu anfaal laay ak ñett lam waxaatoon ne wa il walladina ida faalu faaxisatan aw dalamu anfusahum dakaru llaha fastaghfaru li dunubihim wa man yaghfiru dunuba illa allah mu ne am na ñoo xamante ni mën nañoo am njuumte sax ba def ay ñaawteef <clears throat> benn muy ay wax wala muy ay jëf wala ñu tooñ seen bopp waaye ginnaaw loolu lépp nag ñu fàttaliku ne am nañ boroom boo xamante ni ab jéggalaa kon la ñu tuub dellu ci moom réccu lañ defoon fas yéene duñ ca dellu nee na boobaa wa man yaxfiru dunuba illa allah walam yusirru ala ma faalu wa hum yaalamuun ci Ali Imran téeméer ak fanweer ak juróom mu ne ñooñeekat mooy amut xam nañ ne kenn du jéggale bàkkaar yi ku yàlla moo tax nuuruñ ca seen bàkkaar yi continué ca waaye dañoo wëlbatiku dem ci borom bi tabaaraka wa taala jéggalu ko mu jéggal leen kon li nga xamante ni itam moo jëm ci xutba bi nga xamante ni incha allahu sunu imaam bi dana ko def bokk na ci soññee gu muy soññee ci ragal yàlla ci àdd ci jamono ji nga xamante ni ci lañ nekk ci lu feeñ ak lu nëbb lépp ñu ragal ci yàlla soo wéetee nga ragal yàlla soo wéttalikoo nga ragal yàlla ndax borom bi wax na ne wa man yattaqi llaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra ku ragal yàlla yàlla danaa la faral sey bakkar te dana la fay tuyaaba ju baree bare bare tuyaaba ju màgg mu waxaa ne wa man yutii llaha wa rasulahu faqad faaza fawzan azima ku nangoo topp yàlla topp yonent bi da nga texe texe gu kawe kawe gu màgg a màgg mu teg ca ne itam inna taqwallahi tubayyidul wajha wa turdi rabba nee na ragal yàlla day tax ëllëg bis penc day leeral xar kanamu karagal yàlla dana tax mu am ngërëmal yàlla wa tarfau darajata dana tax yàlla yitam yëkkati ci ay daraja wa tuwaqi maqtallahi wa uqubatahu wa suxtahu dana fegal itam sàjjam yàlla akum mbugalam aku meram kon nag mu ne nañuy bari lu ñuy tudd yàlla ndax lépp loo fa innahu man yasluhu maa baynahu wa bayna allahi yakfihi maa baynahu wa bayna annaas ku dox ku defar digganteem ak boroomam sunu boroom jàppale ko ba defar digganteem ak i moroomam mu teg ca ne itam dalika bi anna allaha yaqdi ala nnaasi wala yaqduuna alayhi yàlla mooy yore yépp mooy àtte nit ñi waaye nit ñi mënuñoo àtte yàlla wa yamliku min annaasi wala yamlikuuna minhu moo leen moo leen yoreel seen lépp te yoreluñ ko dara wa huwa allasi sadaqa qawluhu wa anjaza wa'dahu laa xulfa li daalik mooy ki nga xamante ni lu mu wax dëgg la te lu mu digee itam dana ko def te kenn mënta soppi ay waxam fa innahu maa yubaddalul qawlu la day wa ma ana bi dallaami lil abid ndax borom bi nee na ay ay dogalam kenn mënu koo soppi te neexu ko te itam du taañ du tooñ kenn kon fa xaafizu raximakumullahu ala kulli ma raxibtum fiihi wa amalu min alsaalihaati maa yarfacu ankum aladaaba wa yutfi kon na ngeen di sàmm ak di góor góorlu ci lépp lu baax loo xam ne xemmem ngeen ko ngeen def ca seen kemtulaay kàttan lépp tey jëf-jëf ju baax yoo xamante ni dañ leen fegal mbugalam yàlla di fay itam meram yàlla moo teg ci ñaareelu xutba itam ne yéen mbooleem jaam yàlla yi na ngeen di fob seen yitte yépp jëmee ko ci yàlla tabaraka wa taala tawajjahu bi himamikum ila xadratil waahidil qahar te na ngeen di sax ci jéggulu wa duumu ala al istigfaar wa sabbixu bi xamdihi bil asiyi wal ibkaar da ngeen di sax di sàbbal yàlla ak di ko sant ci suba yi ak ci ngoon yi wa chammiru an saaidil jiddi lil amali saalixi qabla al fawaat te ngeen góorlu di jëf-jëf ju baax balaa waxtu way raw wa baadiru bi amaalin yajri aleykum sawaabuha baadal mamaat lépp loo xamante ni lu baax la na di gaaw di ko def rawatina jëf yi nga xamante ni tuyaaba ja dalay fekk ci sa biir bàmmeel ginnaaw boo wujjee borom bi tabaraka wa taala wattaqullaha wantahu amma nahaakum ahkamul xaakimin na ngeen ragal yàlla te lépp lu leen borom bi nga xamante ni moo gën a mën a atte way atte yi lépp lu mu leen tere neen ko bàyyi te nag saari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin neen ñëpp na ngeen uh, màbbandoo wuti ci njégg njéggalam yàlla sàkk mu jéggal leen ngeen koy tuub ci moom ngir ngeen man am àjjana joo xamante ni yaatuwaay ba daj na asamaan yi ak suuf te ko yàlla dël dikk ko mooy ña ragal yàlla mu jeexale ne wa aksiru min alsalaati wa taslimi ala safii almaxluqaati fi lmawqifi alazim nañuy bari lu ñuy julli ci yonente bi ak di sëlmal ci moom ndax mooy kii ramb ëllëg bis pénc allahuma salli ala sayidina muhammadin alsafii almaqbul allazi jacaltahu waasitatan fi kulli xayrin wa baaban liman araada alwusul kon ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu ak dégg ak topp te yàggal fi sëriñ bi may ko fan wu gudd lool ak wér gu yaram ba mu yeggale mboolem naalam yi dañu ànd ko moom wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 la الحمد لله الذي أحلنا باتباع أعلم العالمين محلا منيفا ونهانا عن ارتكاب البدع والمحدثات وأمرنا باتباع السنة في كل الأوقات وشرف المتبعين للسنة تشريفا ونسأله كمال اليقين وأن لا نقطع أمر آمالا وتصويفا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعزم له أجرا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن, وإن, وإن التقوى تبيض الوجه وترضي الرب وترفع الدرجة واتقي مقت الله وعقوبته وسخطه عباد الله أكثروا ذكر الله فإنه من يصلح به بينه وبين الله يكفي ما بينه وبين الناس ذلك بأن الله يقضي على الناس ويقضون عليه ويملك من الناس ولا يملكون منه وهو الذي صدق قوله وأنجز وعده لا أقف لذلك fa innahu maa yubaddilu alqawla ladayya wa maa ana bi zallaamin lil abiid fa xaafizu raximakumullah ala kulli maa raqibtum fiihi wa amalu min alsaalihaati maa yarfau ankum alazaaba wa yutfi nafacani allahu wa iyaakum bilqur'aani almubiin wa bi xadiisi nabii saadiqi alamin الحمد لله حمد معترف بما أولاه مولاه ونشهد أنه الله الذي في السماء إله وفي الأرض إله وأن سيدنا محمدا عبده المصطفى ورسوله المقتفى صلى الله عليه وسلم وعلى كل من والاه وانتمى بقرابة أو صحبة لعظيم جنابه وعلى علاه أما بعد فيا عباد الله توجهوا بهممكم إلى حضرة الواحد القهار ودوموا على الصغار وصبهوا بحمده بالعشي والأبكار وشمروا عن ساعد الجد للعمل الصالح قبل الفوات وبادروا بأحمال يجري عليكم ثوابها بعد الممات واتقوا الله وانتهوا أماناكم أحكم الحاكمين سارعوا إلى مخرج من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض muiddat lilmuttaqin wa aksiru min alsalaati wa tasliimi ala shafi almaxluqaat fi lmawqifi alazim allahuma salli ala sayidina muhammadin ashafi alsafi almaqbul alladi jacalahu waasitatan fi kulli xeyrin wa baaban biman araada alwusul allahuma kun lana fi xarakaatina wa sakanaatina ma kunta fi lixaasatika warzuqna yaa tawaabu tawbatan nasuha ووفقنا لما وفقت له عبادك الصالح المخلصين وأشرق في قلوبنا وفي قلوب جميع المؤمنين أنوار اليقين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يغفر الله لنا ولكم allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaat hayya ala al-falaah qad qaamat as-salaat allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allah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 إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسر قليل يسره وذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها يستيقظ يسمى على الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى أولح من تزكى زكاة ربه فصلى وتؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا بالصبح الولد صافي إبراهيم وموسى الله أكبر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 العصور ثلاث فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسكوبة وسرابي مصوفة أفلا ينظرون إلى العلو كيف خلق وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسيت وإلى طاغية كيف سجعت فذكر إنما أنت مستقيم لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر inna ilayna thumma inna ilayna hisaab allah asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.